leneen ci wàllu xibaar mbiri Ismaïla Faye euh, mooy kon doomi Sénégal booba ñu euh, jam fële ca Maroc ba mu ñàkk bakkanam Fès nag euh, la doon dem ngir amal faak ca fanweeri at ak benn ci la toll ca xaar yàlla ga mu cosaanoo njabootam foofa tiis moo di la ñuy dund waxtu wi ndax bëggoon nañoo tegaat bët seen doom jooju waaye gannaaw leneen moo ca xew ñu ngay sàkku nag ñu delloo si leen seenub néew gouvernement bi jàpp ci waaye it ñu jëlay seeni responsabilité cité lii dootul am ma Pape Cheikh Ndiaye Diouf ma faa gànd ceek Alioune ñoo nga ca xar yàlla nekk ci ndakaaru ci biir kër gi lëkk kii di Ismaïla fay di sénégalais ba nu boom ca Maroc dëkkoon xibaar bi nag doon lu nakari ci waajuram bu jigéen bi moom mbir mi jàpp na ko loolu gëj naa ko gis mu doon suma sago ñu indil ma ko ba ma gis ko ndax bi muy dem bëgguma woon mu dem yàlla moo dogal dem bi tere naa ko ba sonn mu ne day dem xëy na lii la yàlla dogaloon ci moom. Goto moom la ko ay xaritam daan woowee di nit koo xamante ni nit ku bëri woon ay qualité. mos a liggéey rek teg na ko ci suma loxo teg ko ci yaayam ak magam ñi ak lu mu doon jur Ismaïla amul benn libin lu dul lislaam benn waxtu du ko raw. dañ daan ànd ak moom liggéey ñu fay ñu fay ko buñ demee ci place bi ñu yàññee. bu ñu añee ba pare moom mu jël xaalisam fay ko te ñun ñu ñu gàdde suñu xaalis suñu poos. Ismaïla Faye ku baax la ku laabiir la Ismaïla Faye yàlla rek moo ko mën a fay te comme dafa doon dem di ziyaare ci loolu la ko yo loolu dal ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom. papam bàyyi lépp ci loxo buur bi moom ma ngay ñaan nguur ga. mu dimbali ko ngir néew kii di Ismaïla fay ñëw ci ne mu gën a gaawee. dama bëgg ngeen dimbale ñun yéen ambassade yi yéen yi job bu nekk ci Sénégal ñu indal ma ko ma suul ko si Sénégal. Ismaïla Faye nekkoon na taalibe Cheikh Al Ibrahima Niass. amoon na fanweeri at ak benn muy beneen sénégalais bu ñu faat ca bitim réew. Euh, gannaaw ba ñu ko fàttee jëwriñ ji di Mankeur Ndiaye euh, yëkkati na ci ay kàddoom euh, nguur gi dana am nu mu doxalee jëmale ci néew boobu waaye te ca la xew foofoo ba lii daal kenn dootu ko dundati ñu teewlu ay kàddoom moo ministre Mankeur Ndiaye ma ngi koo xamlee fële ca rajo Futurs Médias. ñu nangu ñu président ay nit rek ñëw daje si benn place rek armée ñëw jël président bi denc ko. samp benn gouvernement nommé ay vice président nommé président du PS réew ki doxee noonu en addina bi doxee noonu loolu ci démocratie moo tax ñu ni il faut que président mos mu mel ni moom jëwriñ jooju yor wàllu bitim réew ca leneen la doon wax la lay xew fële ca Égypte nem sax wax na ca nañ ko waxee mbiri Ismaïla Faye mi nee na kon nguur gi dana jël euh, loolu di rapatriement corps bi keneen ku ci wax it jëwriñ ji di euh, Seynabou euh, Gaye moom xam leen na ni daal ministre délégué la kon yor chargé des Sénégalais de l'extérieur na mu waxee nag nee na it danañu daal ubbi ab ba daal xool ci yan anam la ko faatee moom Ismaïla Faye procureur nag ubbi na ci ab enquête gannaaw Euh, xew-xew boobu ci xibaar yu mujj yi euh, ki ñu jàpp ni moom moo def ñaawteef woowoo daan nañu koy euh, teg loxo néew bi it nee na kon danañu taxaw daal ba gannaaw bu ñu ko delloosee jàppale ñii di njabootu njabootuk la Faye noonu la ko ministre bi kon xamle